mbokk yi ci gëstu tey bi ñu jagleel njàng mi tolluwaay li Sénégal laata ñu dalal gan gi ji Momar Cissé bu mbootaayu wayjuru ndongo yu Sénégal ñu ànd ci gëstu beeg euh, soxna euh, Fatmata Bag Moussa Sogg ci way euh, wayjuru ndongo yeeg jaaxle gi ñu nekk jamono yi Kalidou Diallo woote nay waxtaan ñu gis ne daa xaw a naaj ñoom njort nañu daal liy xeeñ du leen lu may at mu waa waajur yi jaaxle nañu lool ci ñàkkum njàng xale yi ndax ay grève yu dul jeex loolee mën naa jur ab a blanche waaye rek ñoom bëgguñu koo dégg. tiit nañ ci lool ndax école boo xam ne da ngaa préparé say doom depuis ba école ubbee nga yóbbu leen ci école bi te jànguñu defuñu composition defuñu dara wax dëgg yàlla lu metti la ci ñun te bu ñu sañee nit du am. ndax ma am naa sama set yu nekk crédit euh, waaye xale bi à chaque fois day xëy huit heures après balaa neuf sax mu retourné waat su ma ko ne yow diw faatu bintu tax jàngoo mu a ma maam duñu jàng. je trouve que daal vraiment neexul ba neexul mais guvernement bi ñu si bëri xëy na seen élèves seen doom dañ fi jàngul moo tax defuñ ci seen fulla ak seen fayda pour grève bi ab arrêté loolu la quoi. grève yi ñëpp xam nañ ñi ci école publique yi lay am waaye nag léegi moom mi ngi bëgg a sookeel njàng mi ci école privée yi. di fayal sa doom ba weer dee jàngul dafa metti lu metti la ndax tamit xam nga ne xale yi bu ñu duggee classe yi ñëw génne leen ah mun naa mën na ko élèves yi sonn nañu jànguñu ñun parents des yi fay. ak ñi dul fay yëpp benn la parce que bu ñuy jàngale ñu ñoo génn ñi jàng ñi ñi dul fay kon kay wax dëgg yàlla ku soñoon nag ngir yàlla guvernement bi am lu mu ci def tuuti. xam nga ñoom comme épreuve wu examen yi yëpp même épreuve lay doon te benn section mooy am mënuñu nangu privé bi di jàng moi je suis dans l'enseignement privé ah privé bi di jàng ñoom du ñu jàng ba pare ñu ñëw ñu jox leen même épreuve yi. donc dans ce cas privé bi la ñuy gën a favoriser que public bi mën nañ leen jox loo xamante ne lii si programme bi public bi defu ko privé bi def na ko ah. donc waaw moo tax ñu leen di génne ñu yem au même pied ñenn ci waajur yi gis ne woote Khalidou jàll bii ngir waxtaan ak jàngalekat yi dafa yéex a am. daf ko yéexee waroon na ko gën gaaw a def ko parce que vraiment année bi am na nu mu demee mu mu niil quoi. am na gos yoo xam ne di courage depuis novembre jàngul. xam bu nekk fi Parcelles Assainies depuis 27 novembre ko ci jàng ba léegi. Kalidou Diallo dafa xaw a yéex ci man dafa xaw a yéex ci man parce que néeg-néeg bu ñuy campagne deuxième tour nga naan nangam nangam loolu ñi muy waxal duñ ko gëm ginnaaw gënuñu mu ko woon bële bii waxi noppi. bu ñenn ñi gisee ni mën nañu sauver année bi ñeneen ñi jàpp ne mënatul ne année bi nul na ba pare li wóor mooy daanaka année scolaire bi jeex na fu xalaat bu rafet jógee ngir sauver année bi war nañ ko appliquer ci ni mu gën a gaawee.